di ci sant Serigne Touba nag bu wér euh, di ñaanal euh, sëñ Mountakha Bassirou yàlla na fa yàgg lool tànd wér di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool tànd ko wér di ñaanal sama sang ba nag sëñ Moustapha Bassirou yàlla na yàlla yokki leeram te taas na ci barkeem di am mbégte nag bu baax nag ndax lii murid yi dañ ko namoon lool daa nag ndogalu sunu borom la loolu kenn mënu ci dara suñu borom rek la waaye nag bi ko sunu borom jeexalee nag euh, jeexal na ko. waaye lii nag lu lu lu murid di namoon la waaw dinañ ci ñaanal nag yéen fan wu gudd ak wér ak yokkute ndax jàmbaar ngeen lool wax dëgg yàlla te yéen a ngi dox jéego yoo xamante ne ah, eh, jéego yoo xamante ne eh, Sëriñ Tuubaa nangu na ko eh, yàlla ak yonante bi Sëriñ Tuubaa nangu na ko bu wér ba tax na ah ñoo ngi ci sant daal bu baax di ñaanal daal suñu mu taxa ba sur yàgg fi lool tànd ak wér waaw ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm di ñaanal sunu borom yokk leen jëmale leen ci kanam ak mboolem jullit di ñaanal sëñ Mountakha yàgg fi lool jërëjëf sëriñ Tuubaa nag yàlla maam Cheikh Ibrahima Fall. salaamaaleykum wa rahmatulah. Baye Ndary yaa ngi en direct télévision Al Mouridiyyah oh. yaa ngi def jëlaay bi fii bokk ci magi taalibe yi nga xam ne bokk na ci daara ji ban jàngat nga am ci te nga teew fii saa su ne waxtu wu ne. waaw xanaa doole sant rek sant bu wér a wér rek ndax démb fekke démb fekk tey moom doy naa sant yàlla li ñu di mooy si mun Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax sagal na yoon mu yëpp moom moom lu ñu sant sant rek dese baru sant incha allah surtout ñun nag mbooloo bi nga xam ne ñun la sagale lii li moom àdduna bi yëpp la ko defal barke borom Tuuba xanaa doole sant rek kay sant sant bu baax rek waaw yéen tam ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci seen liggéey bu rafet waaw ndax lii fi mu ne nii bi muy bi daara ji soo kii boobu ay journaliste ñoo daan ñëw ñu def ay banderole di ci kii léegi àdduna bi yëpp di ñu seetaan kon war nga xam ne ab jéego bu rëy am na waaw ndax bu màggal Moussa jot banderole yi ñuy kii waa di ci la ñëw di jël ay notes di réer léegi nag ñu def ko direct kon moom ñu sant sant rek ndese barub sant jërëjëf sëñ Touba asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant Serigne loolu tamit waaw mbir mi moom moom la ndax weeru sell wi di sahru Ramadan nga xam ne ku ci nekk ak façon bi nga koy dundalee waaw boo ñëwee fii ci kër Serigne Touba gi nga xam ne Serigne Touba yàlla rek yàlla rek moo ko ma sa ak yonent bi waaw ndax euh, ku nekk nga koy dundalee ñii ñoo ngi woor tëju waaw ñun nag euh, ñi boo gisee Baye Fall yi di nga koy dundale nga xam ne euh, sëñ bi daal yàlla rek a ko mas waaw yéen ñi nga xam ne nag yéen a yéen a ko fi nekkal te di ko di ko liggéeyal waaw moom bu leen tiit bu leen ragal gëm naa ne sëñ Tuubaa gis na ko. ndax euh, liggéey bi moom macha allah fa tabarakallah yàlla suñu borom yokk man-man gi yàggal fi ki nga xam ne moo ko fi wuti muy Cheikh Mountakha Mbacké Bassirou mu yàgg loolu di barki xës yi jërëjëf. benn benn Allah